moo nekkoon locomotive bi ñoom ñi ci des ay wagon la ñu woon mais bi yoon da nga ne yow dong yow yaay dem ci législative yi ci échiquier politique bi nga xamante ni dafa redessiné waat yeneen pôle taxaw ci ñi ngeen nar a jàmmarloo ngeen soxla majorité ngir mën a yombal liggéey gi ngeen tàmbali ak sénégalais yi alors naka ngeen fas yéene songe législative yi nga xamante ni mi ngi sunu kanam. xam nga ñoom ils sont trop pressés à faire dire au président ce qu'il n'a pas que Pastef allait participer seul aux législatives. la preuve bu ko waxoon. Mhm. Abdourahmane Diouf. Mhm. parti la yor légalement constitué am récépissé am. te ma gis taxawaayam muy nit ku am fulla bu Pastef waxoon loolu. Mhm. bu ko neexee mu génn dem berul boppam. le président Ousmane Sonko n'a jamais dit que Pastef la ñuy demee coalition lañ deme woon coalition yi bu ñu dem si récépissé la ñuy dem li li soo ko wax mooy. on va partir avec la coalition Diomaye coalition bi tey lañ ko gën a gëm tey lañ ko gën a dëgëral mais bu ñuy dem si bannière Pastef la ñuy demee. léegi nag nit ñi bu la neexee. mais est-ce qu'il une différence à ça. am na sew sew boo nga xamante ni wuute nag na ngeen demee woon ca présidentielle ba. qu'est-ce qu'il faut retenir cette fois-ci lan mooy particularité bi loolu laa bëgg a xam. la particularité mooy. parce que y a tout un débat là-dessus parce que y a eu des frustrés yi génn maanaam dénoncé euh, en l'occurrence je l'ai reçu ici maître Moussa Diop parce que la dama la démarche qu'a adopté tey votre leader Ousmane Sonko euh, jàpp na ni mënoon na woon doxalee neneen mu mel ni da ngeen di bañ wor. ndax dafa am lu ngeen dundoon ca démb te leçon yi démb yi fi mu ne daf leen war a jëriñ njëriñ li ne seen kanam. Eh, madame xam nga yaa Moussa. waaw Pastef. Hmm. parti bu am taxawaay la ci am xeex bu rëy boo xam ne da koo mëne. te xam nga li ñuy wax. Hmm. dëgg mooy mujj toujours. tey l'histoire a donné raison à Pastef. ok parce que malgré li ñu dund lépp taxawaay bi ñu amoon mosuñu faiblir ba moo tax ñu élire un président de la république ànd ci nag ak suñuy nawle. ñuy ay gor wan ñu taxawaayu gor jàppale ñu ànd ak ñun bëgg réew mi ànd ak ñun defar réew mi bañu nga gañe ñooñee tamit bi ñu posé le débat sur ci ban récépissé la ñuy demee ñu ne nañ demee récépissé Pastef ça leur a pas posé problème nga xamante ne defar réew mi tey j'ai écouté euh, particulièrement le le le euh, docteur Abdourahmane Diouf mu ne man ba may ñëw dama ñëw jàpp nga Sénégal moo ma ñor j'ai jamais demande à être nommé ministre j'ai jamais demandé à ce qu'on nomme mes directeur ci législative yii qu'on investisse des gens de Awalé ou pas on va battre campagne man loolu laa gëm loolu mooy coalition bu ñu rek fekkee réew mi kese moo ñu ñor mhm. ñun suñuy personne dañ ko war a teg de côté suñuy égo dañ ko war a teg de côté xool lan mooy njëriñu réew mi man jàpp naa ne coalition bu ñu ci dugg noonu lañ ci war a duggee ca saa yi te clair jomaay président bi ñu ko taxawalee mm. kenn du ñu imposer kenn du ñëw tamit ne charte bii ñu teg. Mm. da ciy da ciy dugal loo xamante ne xëy na ce n'est pas en droite ligne avec mm. ce que les leaders ñoom ñëpp bi ñu ñëwee que ce le professeur Mary Teuw ñaan que ce soit ñi ci bokk ñëpp dañu ñëw ànd ci mouvance bi. Mm-hmm. gis seen bopp ci li ñuy def xam ne réew mi rek moo tax a jóg ñii. te yéene bu rafet la ci ñëpp duggee. ah am na ñu dem ci diggante bi am na ñu ñu génn ci diggante bi tamit. waaw mee xam nga taxawal nañ ñoom tamit seen pôle. xam nga politique. Euh, te da ngeen a doon adversaire te démb da ngeen a àndoon. waaw mais xam nga politique moo tëddee noonu. Hmm. politique moo tëddee noonu. politique y toujours des entrées et des sorties. lan moo fi war a mën a ñaaw ndax ànd bi rafetoon na ba noppi. da dara ñaawu fi yaa Moussa man pour man. Hmm. dara ñaawu fi parce que xam nga dara ñaaw. Hmm. Euh, ba léegi suñu leader kenn déggu ko mu taxaw en tant que président de PASTEF. taxaw wax ne diw nangam wala diw nangam. après nit ñi ñooy épilogué nit ñi ñoo ñooy ñooy wax ñooy demale ñooy fekkele mais Ousmane Sonko ko xam. Mm. xam ne lu mu ragal a wax toog fay jooy ba nit ñi laaj ko ko. amul benn débat bu muy daw amul benn débat boo xamante ne dana ci ragal a prononcé wu. loolu moom. Mm. lu clair la. après nag politique moo demee noonu nit ñi dañuy ànd tey pour un temps x. Mm. bu subaa ñu séparé wu pour un temps y. mais toujours y a possibilité de se parce que dañuy man dama jàpp ne am na benn génération bu fi nekk. Mhm. boo xam ne ñoom la yàlla dénk réew mi. ñi ñu maaseel ci at wala ñu bokk ak ñoom génération war nañu seerente les coudes war nañu ñëw jàpp ci liggéey bi parce que lu ñuy def lu ne liggéey pour Sénégal jëm kanam la. lu ñuy def lu ne pour askan bi gis boppam ci génn ci jafe-jafe yi. Mhm. gis boppam ci naataange gis boppam ci développement. man képp koo xam ne jàpp naa ne Sénégal ñor na la. Mhm. régime bi da ko war a soutenir. alors Déthié Fall médiatique après mois d' absence. mu ne entre temps déggantewul ak Sonko déggantewul ak président Bassirou Diomaye Faye waaye teewul bu ñu ko mosaan a interpellé danaan nañ leen may ndax ñu ngi doog a toog waaye li gën a sabab génn gi tey da doon expliqué wu mu mel ni dafay eh, indi ay leeral ci ay tuuma ci traîtrise guñ ko jiiñ jàpp ni dafa wor diggante ma ak Sonko alors tey naka nga jàngate jàngatee euh, sortie ki nga xamante ni moom mooy euh, Déthié Fall ak leeral yi mu indi par rapport ak rapport am yi nga xamante ni am na ko ak seen di leader Ousmane Sonko. xam naa yaa musaa bu ñu defee un peu xam nga dañu créer li ñuy wax yeewee askan wi. tout à fait. ñu ànd dem ci local. le président Sonko. ànd ak le président xalifa Sall ak ñoom ñëpp. ñu taxawal yeewee askan wi. Sénégal yëpp tàccu ñi bëgg réew mi defaru ñëpp tàccu. ñu àndandoo fal ay maire législative jot ñu ne dañuy bokk benn liste coalition boobu mooy dem élection législative ñu àndandoo dem législative ñu éliminer la candidature du président Ousmane Sonko éliminer list prince liste nationale list liste mhm, euh, mhm. titulaire yi titulaire bi Ousmane Sonko n'était pas candidat il a battu campagne génn ci taw bi génn ci ndox mi génn ci naaj bi pour fal ay député continuer yeewi askan wi dox yeewi askan bi am charte ne bu ñu demee ba présidentielle na ku nekk demal sa bopp ku bëgg dem na nga dem ku xool koo bëgg àndal ci ci biir yeew yi nga ànd ak moom ngeen def seen coalition ngeen dem élection présidentielle mm-hmm. bu ñu demee ba deuxième tour jot mm-hmm. ku jiitu ci yeew yi nit ñi topp ci sa ginnaaw mm-hmm. lool la ñu waxante woon tout à fait dem nañ élection présidentielle sénégalais yi ne duñ dem deuxième tour plébiscité le président Bassirou jomaay Faye parce que moom la Ousmane Sonko ko joxoñoon kon damaa jàpp ne ñoom la ñu diggante woon ak yeew yi matal nañ ko parce que la président Khalifa génn def def dem coalition le président Déthié génn na demal boppam le président Malick Gakou génn demal boppam man nag dafa am noo xam ne loolu c'est personnel. mais am na sew sew boo leeralul de liste ba yàqoon am na lu ko sabab. waaw fa liste ba yàqoo loolu le président Ousmane Sonko foog naa taxaw na leeral ko. Hmm. la ca lañ ca waroon a leeral lépp leeral nañ ko ci jamono joojee. parce que danoo mën a njort ni kat lii xew tey ba yenn yi. man xam nga yaa Moussa man damay bëgg toujours. man loolu c'est c'est ça n'engage que moi toujours di dogal nit ñi ngànt. Mhm. man yéene bu rafet rek laay jàppee nit. te man li ma jàpp mooy Déthié Fall amoon na yéene bu rafet. Mhm. après nag y a des yoo xam ne ci biir xëy na euh, loolu ca biir la. man ñun mën nañ ko bañ a xam mën nañu bañ a am information mhm. mais man amoo mon niveau ak fi ma ci toll ci information mhm. man yéene bu rafet laa ko jàppale que ni leneen lu ci am tamit suñu borom mooy tànn parce que mhm. suppléants yi ku leen waxoon tey di ngeen nekk député duñ ko gëm après tout problème nguur la nguur suñu borom moo koy joxe ku mu bëgg nga doon ko moom ngay moom ngay doon li jëm ci le président di Fall et sa sortie man dama koy rafetlu parce que teggi tuuma du ragal te bu fekkente ne da nga dis gor ànd ak ay nit ngeen doon xeex ba yàlla dogal seeni chemin séparé wu jaar fii ñii jaar fii parce que loolu lañ diggante woon te retrouvailles mun mën naa am à tout moment wax ju rafet yi mu génn wax loolu rek mooy taxawaayam man ma naw ko ci nag mm-hmm. loolu ça n'engage que man mm-hmm. sama responsabilité personnel la mm-hmm. man loolu laa gis ci moom loolu laa ko jàppalit ba keroog nag leneen di soppeeku parce que politique tamit dafa doy waar ndax dégg nañ fi lu ne dégg nañ fi sama doomu ndey bu xëy di la saani xeer waaw léegi sama doomi ndey yooyu ak ñoom ñu former seen bloc parce que vous avez en face de vous PRP PUR ak taxaw Sénégal de l'autre côté nga gis APR dem na fekki ñi nga xamante ni ñoom ñooy PDS PS fekki Amadou Ba ak ñeneen ñi nga xamante ni demal nañ seen bopp donte am na ñoo xamante ni rangé wu nañ ci ginnaaw yenn parti wala yenn leader euh, politique yi est-ce que Pastef pour cette fois-ci ak démarche bi ngeen bëgg a adopté ngir song législative yi ñii ngeen ko nar a sekkal eh, mbir yi naka la nar a tëddee waaw. yaa six mois. Hmm. lañ leen boole ñoom ñëpp duma ñii nga mali limal ñëpp. waaw ah. six mois bokk ñoon ci coalition bi dara soppeeku fi nag sénégalais yi doon voté c'est les mêmes sénégalais ñi yokk ndax am na xale yoo xam ne ñi ngi tey woon seen carte électeur nanguwuñu leen ko jox ñoom ñoo ñëpp dañ leen boole woon duma bañ na waali biit noonu rek lay demee waat ndax ñoom ànduñu woon ak ñun ci les présidentielles yi di que muy le président Khalifa muy décc mooy ko ci nekk da ngaa beroon sa chapelu bopp te dañ leen boole. man j'ai comme l'impression da nga a bëgg réduire à leur plus simple expression. mukk ci àddina duñ ñun duñ def noonu. <laughs> loolu ki hmm. moom dañ koo réduire à sa plus mais ñoom ñoo ñëpp ngay wax. Hmm. ñun tiituñu leen ragaluñu leen. parce que bañ ca demee ci présidentielle wan nañ leen ñun naka la ak nan la. Hmm. te les mêmes sénégalais yu ñu plébiscité woon en. il y a six mois. les mêmes sénégalais ñoo ñoo fi nekk. te sax am na ci ñoo xam ne malheureusement dañu confisqué woon seen i carte électeur ñenn ñu ñu téye ko ñenn ñu bindal leen ne pas voté mm. te ñoo ñépp dañuy ñëw voté si te ñoo ñëpp ko xam jeunesse bi ak fi ñu teg le président Ousmane Sonko mm. xam ne duñ ko fal président mm. Diomaye Faye wëlbatikuwaat di ko xañ majorité à l'Assemblée nationale sinon ils seront même pas conséquents avec eux-mêmes mm-hmm. autant Déthié Fall def na sorti mais li ko jiitu démb juste da ngeen pare gouvernement face à la presse ànd ko ak Ousmane Sonko euh, Bougane Gueye Dany def réplique daanaka.